maa ngi lay fay bu baax maam Diarra. borom Grand Yoff ñun on a problème. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. gis nga amnistie bi. Mm-hmm. ñun soxlawuñ ko le peuple ne réclame pas une amnistie. parce que lu fi xew depuis début mars mille vingt et un jusqu'à nos jours du ñun ñoo ko teg suñu bopp. nguur gi moo ñu ko teg ñu ñuy jaay doole di rey suñuy doom ñun nag. soxlawuñu ku ñu amnistier Seydina Ousmane Sonko parce que gënul xale ya dee. Mhm. Jomaay Faye soxlawuñu ku ñu ko amnistier parce que deful dara Jomaay lan la def un post Facebook mois de Ramadan au moment où il servait son pays à vingt 22 heures fa lañ ko fekk jàpp ko les faits sont là fàtte xaju fi man nag damay laaj ñoom ñi nga amnistie bi. ndax ñoom bu ñu bi su jàllee xanaa Pastef dañ koy restituer waat licence am man j'aurais bien j'aurais bien aimé mhm. ñu tontu ci question boobu parce que mënuma ci sori ndax je suis pas expert en droit mhm. mais daal xam naa ne balaa ngay amnistier ay fait xanaa jaar dinga def enquête mhm. respons situé lan ñoo nekk les responsables ña dem kenn mënul indemniser seeni mbokk mais xanaa ñi nga xamante ne ils ont perdu leur bien ñi nga xamante ne seeni cër wàññeeku nañ ci xanaa ñooñu au moins dinañ leen jox nàmpaay mais mm-hmm. tëb tëb nii rek Macky Sall daal amul ci ñun benn respect di ñuy jaay doole suba ngoon guddeef bëccëg wallaay bàyyi nañ ko yàlla te xam ne Dieu Dieu il le plus juste des juges te yàlla dinañu àtteex Macky Sall xam nga ne lii su demee assemblée nationale moom moo am majorité dafay jàll et ces députés qui sont là nekkuluñ fa peuple bi malheureusement ils sont là que pour jàpp nekkal fa li li Macky bëgg waaye ñu ngi toog di seetaan dina mës jeex te wallaax ñu ngi nekk ci dernier tournoi bi dina jeex caaxu bu so jërëjëf d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax borom euh, Grand Yoff voilà ñu fàttaliwaat leen tamit beneen ponk bi bokk na ci euh, euh, jàppante bi nga xamante ni doxoon na ci diggante pro Sonko yi ak pro xalifa yi ni ki weekend bii ñu génn ginnaaw manifestation bi nga xamante ni ab kuréel bombu F24 ak yeneen ci ay parti wala mouvement ëmb na ko ñu doon amal ab manifestation ngir sàkku ñu amal ay élection laata le avril gis nañu nag jàppante dafa daal di dox ci diggante. diggante pro euh, Sonko yi ak euh, pro xalifa euh, Sall yi gis nañ révélation yi nga xamante ni am na ci après gis nañ vidéo yi nga xamante ni fuite na ñuy ñi di waa taxawu Sénégal di giñante ci seen biir ne lu ni mel daal lañ cay dut baaraamu tuuma Barthélemy Barthélemy Diaz en tout cas jamono ji ñu toll nii ña ngi ko cay dut baaraamu tuuma tax kuréel gi ñoom jàpp ne du ñu bàyyi mbir mi mu daal di sedd dinañ ko daal di yóbbu fa mbaxana doone benn donc woote leen ci 88 628 après 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee di ngeen daal di mën a dugg ngeen wax seen xalaat ngeen daal di aimer partager live bi su ko defee waxtaan bi gën a mën a yaatu ah, ñi nga xamante ni jotaguñu notification ñu mën ko daal di jot ñu ànd ak ñun ci waxtaan bi donc laal leen kër yi laal euh, euh, euh, li nga xamante ni mooy m yi bu ko defee rek waxtaan bi gën a gën a mën a yaatu ma nuyu Abdou Ndiaye Moussa Lamy lakkale bi nuyu naa la di nuyu Ali Sène ah, Moussa Diop ñi ngi leen di jaajëfal bu baax baax bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ko teewlu ay kàddoom salaamaaleykum mbokk mi. salaam soxna Diarra na nga def. <coughs> maa ngi maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi leen di ziar maa ngi woote fii ci Amérique maa ngi leen di man la Pape maa ngi leen di ziar ñëpp maa nuyu ñëpp. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñoom mm-hmm. Saa maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi lay fay. man li may bëgg <clears throat> man li may bëgg a wax rek. nu <clears throat> ma jéggi li may bëgg a wax rek moom mooy gis nga loi bi. Mm-hmm. ñiy jéem a mm-hmm. fii nga fi la Sénégal lay war a xamee seen bopp foom li xam nga lii moom li ndaw si wax bi rek moom rek laa d'accord par force day jaar assemblée nationale parce que ñoo fa ëpp majorité parce que ñoom xool ñu jéem ñu xool citoyen yi ñu xool population ñëw du Macky Sall bëgg la ñuy def lu Mm-hmm. allo Pape alo allo alo Pape. voilà alo waaw yaa ngi dégg allo oui ñu ngi lay dégg Pape. yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaw. da léegi maintenant ngir yàlla xu rasuul nit ñi bu ñuy voté muy législatif muy présidentiel nañu xool bu baax fi ñu dugal seen carte nga xool ni ñii ndax askan bee leen tax. Mm-hmm. oh mu mel ni uh, tey sa xool député yi ni ñuy gaase. du donc ak waa Pastef ak waa Pire yi ñoom ñoo ñoo fi représenté population ñeneen mm. ñoo fi gis kenn représente euh, seen kenn représente population bi. Mm. ku dul seen bopp ak seen poche. parce que bu ñuy dem campagne dañuy nekk ci nit ñi di leen dig di leen dig di leen dig di leen dig mais bu ñu foloo rek ba seen poche fees rek fàtte nañ ñu leen ñu Mm-hmm. man li may ñaan ngir yàlla war wa rasul ngir yàlla bu ñuy voté présidentiel wala législatif nañu xool bu baax ñan lañuy ñuy ñoo xam ne mérité nañ ko. Mm-hmm. parce que fu mu nekk nii soxna jaar léegi ñii see xamee seen ñàkk nañ seen doom ñii ñàkk seeni i wala ñii ñàkk seen i wala ñii ñàkk seeni yaay ñooñu léegi ñoom nga xam nga métteet boobu nu muy jur nga xëy nga ne baal nga ñëpp. Mm-hmm. ak ñi jël xaalisu Covid bi nga xëy ñu ne la bàyyi na leen nit ñi jël seen xaalis dajale seeni i ñaq ñoo xam ne lekk naanuñu mais loolu du yoon. Mm-hmm. xam nga Macky nga su may toog di xalaat bi Macky Sall def barki yàlla may gën di feebar parce que Macky Sall ngir yàllul boppam xool respecté wuñu ngir a suul nit ñi laay waxal boo leen di voté voté leen ñu xam ne ñu ko jar man de ñi may wax bu nekkee ñaari parti yi dong laa wax boo leen di voté voté leen bu ne boo leen mënul voté Pastef ngeen voté PUR ñaar ñooñu dong laa war ñi si des ñëpp ay warkat la kenn mënu maa wax ba moo gëm li ngay wax. d'accord. Mm-hmm. jaajëf merci beaucoup euh, Pape ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waxtaan bi waroon na gën a mën a neex mais euh, tey euh, raison bi normal ñu ngi ci ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Pape Amary 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Aram Ndiaye nee na anaw daat daat woowu lay la ñëpp di laaj ñoom la moom la ñëpp di xaar donc ni ki tey le président Macky Sall nara jot wala moom moom la nara jotee ligne ñu tënkee ci waxtaan bi lañ fa tënkee nag bokk na ci datu 2 euh, juin bi nga xamante ni euh, proposé nañu ko ngir amal ci ay élection gis ngeen tey ci fajaru euh, Baara Mbacke dolli indi na ci ay leeral jàpp na ni daal am na loo xamante ni lu baree baax yi tënk dañ ko ci dialogue ba te ànduñu ci ñoom ci seen biir donc mu nekk mbir mi nga xamante ni daal ci loxoy conseil constitutionnel moom moo nar a saytu boobu lay dat ndax xam élection dina ci mën a daal di am ndax dafay jàppaat beneen dat en tout cas ak lu mu ci mënti doon conseil constitutionnel mel euh, jàpp naa ni moom euh, moo nara daal di rek xool càmbar ba xam lu ni mel dina daal di mën a nekkam déet donc woote leen ci 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 ku jël ko salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax mbokk mi. waaw maa ngi leen di ziar bu baax. Mhm. ñu ngi lay. Euh, tur di rafetlu seen émission bi. jaajëf merci beaucoup. bon maa ngi tudd Abdou Seck maa ngi wootee Dubaay. yaa ngi wootee. Dubaay Dubaay. Dubaay d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Abdou yow rek la ñuy déglu. bon man euh, dama euh, ma bëgg yokk ci waxtaan bi ma koy tàmbalee ci mbiru conseil constitutionnel ñoom li ñu war a def heure bi nit ñi naka la biñ lu président Macky Sall bëgg biñ ko ko may. ñoom comme que président Macky Sall moom ba léegi maanaam mënuñu mënuñu jox sénégalais yi datu élection kon conseil constitutionnel ñoom nen def fexe ak seen doole ak seen man-man xam-xam parce que jàng neen xam nga am neen xam-xam boobu noonu ñuy naka la ñuy jox eh, eh, sénégalais yi datu euh, datu élection euh, mu bañ a yàgg daal parce que loolu moo gën président Macky Sall toog fi ba mandat bee xam nga sénégalais yi diñ xam ban bis li ñu war a voté ji te loolu bu boobaa mun naa indi beneen tolof tolof si réew mi kon ñoom lépp ba lépp lu leen président Macky Sall invité action bu leen président Macky Sall mëntu wax ñoom nañ ko wax na ko ñun daal loolu naka la la nga bëgg yëpp ñun duñ ko man a def joxal sénégalais yi datu élection wala ñun ñu jox sénégalais yi datu élection loolu moo gën xam nga benn bi maa ngi koy ci si naka la waa naka la jàppante bu amoon de Khalifa ak si euh, wa président Ousmane Sonko xam nga loolu euh, dafa daan rafetul te man li may wax ne bu fekkoon Ousmane Sonko mu ngi woon ci biti koran lii du am kon waa naka la waa xalifa yi ñoom nañ xam li ñuy def parce que ñoo ñenn si ñooñu Ousmane Sonko moo tax ñu am lu am ku si mel ne Barthélémy Dias Ousmane Sonko moo tax mu nekk maire kon ñoom bu fekkee ba léegi ñu ngi bañ Ousmane Sonko ba léegi Ousmane Sonko mu ngi ci loxo yoon ba léegi ñu topp ko bañ ko yàlla suñu borom moo lu Ousmane lu am yàlla suñu ko may kon ñoom buñ bàyyi naka la ba ñeneen voté waa Ousmane Sonko dem ñeneen ak ñeneen dem ci naka la ci opposition bi yëpp léegi ñoom waa Khalifa ñoom ba nga xam ne ñoom demagul problème amagul lu tax ñoom ñoom ñi dem rek problème am kon dafa mel ni ñoom dañ waaju ñoom problème bi yóbbaale ko xam nga nañ bàyyi li ñuy def ni Ousmane Sonko lu am yàlla suñu borom moo ko may kon waa Khalifa yi ñoom li ñu nekk Khalifa Sall bu fekkee nii jogu si moom day daane boppam bu fekkee moom dafa bëgg day naka la day teraay pour mu jiitu Ousmane Sonko moom Ousmane raw na ko bu yàgg mënu koy jonati bar bar Barthélémy Dias ñëw parce que Barthélémy Dias Ousmane Sonko but moo tax mu nekk naka la moo tax mu nekk mhm. doole ñu xeex li ñuy xeex mooy lan système bu fi nekk naka la ñu jëlee ko fi moo gën ñu ne dañuy indaat beneen jiix jaaxa si ñoom si seen biir bu fekkee bëgg nañ jàmm ji gën a yokk parce que léegi Sénégal jàmm newu fa léegi bu fekkee dañ bëgg indaat beneen crise mhm. xam nga Euh, loolu loolu xaalis jaru ko bu fekkee ñoom dañ leen dig xaalis pour ñuy ñu indi jaxasoo diggante euh, diggante ñaari parti yoon xam nga loolu xaalis jaru la sénégalais li ñuy sonna rek. jaajëf kon nañ nañ nañ booloo seen doole nañ boole seen doole ñu xeex li mu jeex loolu moo gën. Euh, soxna jërëjëf merci beaucoup borom euh, Dubaay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xibaar bi nga xamante ni jamono yu ñu toll nii euh, mi ngi fi doogay rot ñeel maire Amy ja mi nga xamante ni def na ab di ci kaso bi ñu gis ni jamono yi yaramam dafa daal di sutante bu baax a baax ba mu nekk ci l'hôpital moom la ñuy xibaar ne jamono ju ñu toll nii maire Amy Dia daat nañu koy may liberté provisoire maanaam jamono ji daal di nay libre waaye liberté euh, provisoire la ñu ko daal di may mu nekk xibaar bu neex euh, Mariama comme ni ma ko waxee woon sànq maire Amidia mi nga xamante ni tegoon nañu ko fi loxo ci mbirum euh, force spéciale ab diir mu def ko ci kaso bi yàgg naw yàgg gi nga xamante ni yàgg na fa gis nañ jamono yi weesu rek fameem ak ay doomam génn di àddu ci li nga xamante ni mooy situation moom yaramam dem ci kaso bi ba neexatul jamono ji mu nekkoon ci diwaanu l'hôpital moom la ñuy xibaar ne may nañu ko liberté provisoire mu nekk xibaar bu neex waaw xibaar bu neex la vraiment yàgg na trop yàgg na ci prison bi. Mhm. njabootam ñëpp wax nañ ba sonn mais mhm. comme. comme liberté provisoire bi lu ko indi xam nañ ko dafa feebar. Mhm. moo tax ñu mun ko may liberté provisoire mais jaar loolu yëpp man dama ko waxul. lii yëpp lu ko indi président. bu joxe woon date élection yi defe naa ne lii yëpp du fi am. keroog la fois passée samedi comme ni nga ko waxee sànq rek pro mi ngi pro Sonko pro. Khalifa Khalifa Sall ñu ñëw. indi foofu problème kenn xamul. Mhm. man réew mi dafa jaxasoo. jaxasoo na réew mi dafa jaxasoo nañu waxan dëgg <laughs> Macky Sall. Mhm. na joxe date élection yi. wax dëgg fa yàlla li ñu naan coow li coow li man a waaye coow li coow li moom la lii yëpp ab date rek la ñu soxla data indi coow li yëpp Sonko dafa soxlawul amnistie. Mhm. Diomaye la même chose soxlawuñu amnistie na joxe date élection yi ñu dem élection. si jàmm ak salaam. <laughs> ku waxulee wax la ca des. Mhm. voilà euh, gis na commentaire yi ku ci nekk ma ngi di wax alhamdulilah en tout cas. Mhm. mbir la boo xamante ni euh, muy euh, képp ñu bari ci askan bi ñu ngi ko doon sàkku ndax yaay mère de famille la. ba pare nekk koo xamante ni nekkatul xale maanaam mu ngi commencé woon di jël âge. ñu denc la ci kaso boo xamante ni lañ la cay toppi amul enquête amul dara dem ba yaramam neexatul donc en mm. tout cas ci mënti ak lu mu ci mënti doon euh, ñu ngi koy ñaanal yaramam bi nga xamante dafa sunaate jamono ji yàlla daal di fëgg boppam ba mu wër ak jàmm liberté provisoire bi bi sax moom warul woon <laughs> dañ ko war may liberté dañ ko war a may euh, liberté totale ñu jël ci ki ci ligne bi salaamaaleykum mbokk mi maam Diarra noo def ça laa Lyon ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. maa ngi a a naa la ça va bien. ñoo la raw maa la raw bu baax a baax laa Lyon. waa ma ne kii nu mu tuddate ñu ngi sant yàlla ci mm-hmm. mama Amidia li mm-hmm. mu mm-hmm. euh, jàpp nit ka nga xamante ne yow woon na ne yàlla ni la deful dara boobu ba léegi nga jàpp ka dugal ko ci kaso bi ba yaramam sutante ba mel nii tey bu dee bu deewoon tey sa loxo tey ay deewa yokk rek sa loxo te nga xamante ne fajul dara quoi yàq nga gën a yàq sa image ci àddina bi lan moo ko fi fi ñu toll nii yaa ngi génne fi ñu toll nii moom ma faju ma nga am jabet ci ci ci ci ci ci kaso bi am yeneen ak yeneen yaramam sutante trop ba nga xamante ne waa këram jaaxle nañ lii mhm. dara jaru ko. lii mhm. politique jaru ko dara jaru ko ndax lan ndax bëgg yàq image benn doomu jàmbur ba nga xamante ne yow ku yàlla yàqul image am mënoo ko yàq. dëgg la loi amnistie bi nga xamante ni ña ngi koy voté ca assemblée tey xam nga dañ koy voté xam nga duñ ko voté mais loi tappale boo mën a voté beneen loi mën na mën a dindi parce que loi boobu dafa fondé wul. fondewul ci li nga xamante ni ci mooy dëgg bu fekkoon ne amnistie ba nga xamante ne dañ ko jël mu nekk la nga xamante ne lu réel la ñu mën ko def au moins loolu mais li nga xamante ni tappale la yow ban image ban ban ban amnistie nga bëgg def ñi nga xamante ni dañ fi dee boobu ba léegi ñu rey leen ah ay xale yu ndaw doon doon doon génn ah di kii pour seen dëkk yow nga ji nga nga nga jël ay force de l'ordre rek ñëpp tiiri leen ba àddina yëpp gis leen tey nga xëy ne tey da ngay def benn loi ba nga xamante ne yooyu yëpp dañ koy effacé loolu mënut a wu mm-hmm. mënut évacuer ko loolu ay góom la yu nekk ci yaramu nit ñeek ci xolu nit ñi loolu mënut a dañ suñ ko defee ci assemblée ba tamit keneen kii ñëw dana ko dindi par la force amul amul leneen te ku ci laale woon daan la daan daan la woo daan la daan la taxawal. Mhm. daan la daa taxaw daa wax. waaw parce que fi ñu image nag image yaa ngi daw de image yaa ngi daw ba tey leer nañ. Mhm. ku ci ku ci ku xam nañ la. dëgg la Barthélémy Dias kaawam Barthélémy Dias moom. Mhm. Barthélémy Dias dafa soxor. Barthélémy Dias dafa iñaan Barthélémy Dias turu Sonko bi xale yi di way ci biti te nga xamante ne loolu yàlla boo ko def kenn def ko mhm. ñun Sonko la ñu gëm ñun Sonko la ñu gëm looloo koy waaj rey te turu Sonko nag moom du effacé wu ilaa yow mi diine day gën a gën a jëm ca kaw parce que Sonko ko fi liggéey loo liggéey rek yàlla fay la ko loo liggéey yàlla du la ko fay moom mhm. kenn du toog ba dégg ci biti ni Barthélémy la ñu gëm amul amul kuy violent Barthélémy la gën a la passé rek nga xamante ne génn yëre pistolet di tiire ci ay kaw nit ba nga xamante ni ñu bëgg ko rey moom ci boppam ba mu daw làqatu ju dugg ci benn bu ñu dawul woon xamu fu mu jëm ba na bàyyi yi muy def mi vulgaire am gi mu vulgaire ak arrogant bu bëgg arrogant naka arrêté parce que ñu ko rew doo nga nekk ci dëkk bi téeméer junni yoon li muy def tegu ko fenn yow kenn yow xam nga ne yow boo demee ci manifestation yow giwuñu sax ndax yow yaa nga fa xale way turu Sonko di yooxu turu Sonko ngay dem di fay ay nervi ah pour ñu ñëw di tas kii ba yow yow moom moom moom pare na ci pare na ci maire de Dakar pare na ci député pare na ci lépp il est mort politiquement parce que soxlawuñu ku mel na ku mel na Barthélemy ci dëkku Sénégal mu taxaw di yore ay pistolet di tiré yow yow yow président yow yow yow yow yow yow yaa rew président Macky Sall yow yaa rew président Macky Sall yow da ngay génn kon taxaw di tiré ci kaw population président Macky Sall toog ca bureau mais yow yow Mm-hmm. non Barthélemy mm-hmm. Barthélemy daal ñun dañ ko tege ne le waxuñu waxu Barthélemy waxuñu waxu Khalifa Sall parce que ñoom lu yàqu ci dëkk bi ñoo ko yàq boobu ba léegi Ousmane Sonko nag baax ak xol bu baax moo taxoon mu dem ànd ak ñoom ba defal leen tey lii ñu am tey dugale leen ay député mm-hmm. député que assemblée ba ñu wëkkati fa nekk fa di kay waaw waaye ba tey baax na lii lii leçon la leçon buy jàll la lii comme comme comme xamu woon dara ci politique allo allo la Lyon voilà mu mel ni euh, allo la Lyon. allo waa. d'accord ñu lay dégg nga gore ah. noonu war a gore. Mhm. Ah, ngeen ànd ci ngor. nekk te yoo caam la àndaloon. waa ñu wëlbatiku di xeex ak moom ak di ka wax lu bon mooy ñii tey. Mhm. waaye loolu yëpp lu solo buy jàng yàlla baax na. Mhm. waaye fi ñu toon nii loo liggéey rek loolu lan lay fay. élection yaa ngi ñëwaat élection législative yaa ngi ñëwaat élection mairie yaa ngi ñëwaat. moom dara mhm. am nañu am nañu fay xamante ne duñu ne kenn yàllaa ngi ni dan lay fay sa liggéey ci saa si loo def rek ñu jox lag la barke Rasulullah jërëjëf maa ngi jër jërë jaajëfal population sénégalaise seen fulla ak seen fayda nañu taxaw datu élection na conseil constitutionnel jël matuwaayam wa joxe datam bu mu xaar président Macky Sall bu mu xaar parce que boobu ba léegi training bi jëm ci assemblée dialogue bi nga xamante ne dialogue bu tekkiwul dara dialogue ba nga xamante ne ñoom nga sa fa nekk di xawaare ak di di di wax ay wax yu kenn xamul dialogue dialogue man daal. Mm-hmm. ga yaakaar ne jaara xool naa dialogue bi ba xam lan lañ ca wax man intéressé wu ma. Mm-hmm. ay mbubb rek laa gis ay mbubb yu mel ne ay charognard ñu taxaw di di di <laughs> di di défilé woog di dugg ko génn. Mm-hmm. ñooñu taxaw ñu Sénégal déedéet ñooñu taxuñu ñu ñu naan Sénégal. Sénégal dafa am jeunesse bu fa ne. Sénégal dafa am li nga xamante ne fi ñu toll nii ay réalité yu fa ne. Sénégal dafa am li nga xamante ni moom lañu ñu muy liggéey. ay ay yii nekk ay nekkatuñ ci déedéet. <coughs> nekkatuñ ci jaajëf Laliane jaajëf merci beaucoup. ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax euh, laal yoon Fatou Thiam maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax ne na euh, tardé naa Fatou tey tardé woo tey ñun ñoo yéex a tàmbali ba tax na dinañ dem ki yenn ba 16h incha allah parce que problème technique la ñu amoon donc continuer leen ngeen aimer partage live bi s'il vous plaît xibaar bu neex bi nga xamante ni rot na fi muy maire Amy Dia mi nga xamante ni daanaka yàgg na lool ci kaso bi ñu jàppe woon ko di ko toppee lu jëm ci force spéciale ak yeneen yu ni mel donc jamono ji ku na neexul woon ba ñu génne ko daal di koy évacuer l'hôpital jamono ji ñu ngi xibaar yi nag daat nañu koy bàyyi bàyyub néganu ko maanaam may nañu ko liberté euh, provisoire ponk yi ñuy waxtaane tey bokk na ci euh, projet de loi d'amnistie bi nga xamante ni jamono ji ñu toll nii jur na euh, coow niki tey la ñu koy daal teg ci assemblée nationale ngir càmbar ko motif bi ñu wax ni nag moo waral boobu lay pro boobu lay projet de loi bokk na ci fee yi nga xamante ni am na ci atum 2021 jàpp 2024 bi bi ñu nekk lépp loo xamante ni rek yëngu-yëngu la mu jur euh, coow manifestation loolee yëpp nag dañu ko daal di bëgg raxas ba mu daal di seet loola waral euh, jamono ji boobu lay euh, loi beneen ponk bi bokk ci coow bi nga xamante ni amoon na ci weekend bi